dama koy ñaan démb wax naa ko cee conférence ba seen Cheikh réew maa ngi ci jeu bu garaaw xawma ma seetlu nañ ko wala déet ñaar yi gën a foor ci réew te ku ko foyee réew ma suux moom la ñuy foyee mooy éducation ak santé wér-gu-yaram bu amul ci réew ña wér ñaw ñay feebar fajuwuñ fu réew mi jëm bu kenn jàngul ñépp alko te yii lañuy fayee tey ci réew mi Cheikhul Hadj Abdoul Aziz bii ñuy waxtaanee de am na fi grève 88 lii am tey amoon étijan yi bañ tàngalee ba tàngal si ñab lu daf leen woo jak saaw woo ministre bi ak staffam ñu toog mu ne leen wax ji mën naa bañ a bari yéen étudiants yi man seen lan la ñu ne ko suñu maam nga mu ne yéen ministre yi seen lan la mu ne suñu bàyyi nga mu ne kon bàyyi mooy ñaan ay doomam maam mooy ñaan ay sëtam samay sët maa ngi leen di ñaan bu leen laajati lu ëpp bu leen laajati lu mënta am ndax laaj lu mënta am day indi fitna xaw ma dégg nañ li mu wax wala de bu leen laajati lu mënula am ndax laaj lu mënta am day indi fitna mu ne yéen samay doom it maa ngi leen di dënk bu leen gantooti lu mën a nekk ndax gant lu mën a nekk day indi fitna waxtaan leen ba juboo problème ba fa la régloo fa la réglé bul kii laaj lu mënta am fitna rek lay indi waaye ki gantu lu mën a am te ñépp xam ne lii mën naa am bu fitna amee mooma kon nañ bokk waxtaan réew mi nañ seet fi mu jëm xale yi li mag ñi wax ku leen juróon yërëm leen te buñ fexee ba réew mi année blanche am fii du baax enseignants yi li ñuy laaj war ñoom ci seen waxin ne nañ état moo ko waxoon signé ko waaye ñoom it état nañ fexe lañ signé woon ñu def ko su fekkee mënuñ ko Serigne Cheikh Tidiane si moo daan wax ne soo yore leen nit bor te mënoo koo fay mu ne bu ko daw dee ko ñuuxu mu di la gis nga naan ko damaa yoragul rek mu ne te léeg-léeg booy foree aslëf dawal ci mu ne bu yàggee mu jeex wala mu xool la ne la may naa la li ci des waaye ne yàcc yàccaaral rek yoral ko bor bu la wooyee téléphone nga coupé ko boo ko séenee ci mbedd ma le daw ko bu ñëwee sa kër nga tëju ko bu yàggee police ngeen di mujj kon euh, état lum mu signé ñoom bu ko mënul wax bi yomb na na leen wax ne lii ak lii mu maa ko waxoon waaye mënaguma ko lii ak lii ak lii dinaa ko def muñal leen ma délai temps gis nga damay wax toujours ne leen Sénégal amoon nañ sens pire 2000 ndax ñetti élément daje na keroog bi Abdoulaye président Wade toogee yaakaar naa tuuti lañ ci teg Senghor faatu tëdd 2000 Senghor kañ la faatu 2001 ok Senghor mu ngi ci cercle yi maanaam ci jàpp te moo doon président de la république Abdou Diouf jóge France ñëw ngir fekkee levée corps bi moom lañ folli président du toog di exécuter di président de la république moo fi nekk te moom lañ doon bunduxatal daaw ki jiite woon yor nekk buur nekk bu mi mënatul yëkkati loxo lu mu def dañ ko ko def loo fim mu ne ka daan mu valable balaa ñëw sax day ñaan avion bi ndax mën nañ ko ko abal wala déet kañ doon wax ne ko doo fi yekkee sa nakk di ko jàpp di dugal ci kaso bi mooy buur di bëmmi tey waaye ki séddale woon a ngi taxaw di leen superviser mooy suñ borom subhanahu wa taala kon mbir mi xel rek la afala yatadabbaruna alquran mu ne te booba jamono ñoom ñett ñëpp ñoo daje ci bunti pale bi ñoom ñëpp buñ ci jàngoon rek réew mi dox waaye maal asaf kenn ku ne boppam la gisoon moo ñu indi lii ñu am tey maa ngi ñaan yàlla wax naa ko démb donte nag sama lii amut sax boobu doole waaye li ma wóor moom Europe yëpp a ngi koy seetaan bu ko Sénégal seetaan nit moom wóor na ma ne ñi ëpp ci Europe ñu ngi koy seetaan loolu xam naa muy Chérif Dabakh TV bi am na ñoo xam ne xam naa leen ñu ngi ci état bi dañ koy seetaan kon maa ngi ñaan le président de la république gardien de la constitution monsieur le président Macky Sall man jaam bi torox bu tuuti bii maa lay ñaan ci orma ak ci teggin ak ci yar woowal ñi nga jiite ndax li nga yor tey yàlla xañ ñépp jox la ko li ñépp bëgg la yàlla xañ ñépp teg ko ci sa loxo loo mën a jàpp bàyyi ko te seet ngéneel googu yàlla teg ci sa loxo tey nga woo leen waxtaan ak ñoom li ñuy laaj soo mënul léppit nga def ca aslëf ba seen xel dal te boo ca dogee loo wax ak ñoom nga fexe mottali ko ndax kàddu dañ koy sàmm ñi nga xam ne it ñooy revendiquer seen àq lañuy ñuy waaye maa ngi leen di ñaan nit léeg-léeg mu bëgg lu defaru ba bàyyi àqam nga xam ne lii sa àq la dañ la ko war a jox waaye nga bëgg mbir mi jag nga bàyyi sa àq tey ndax sa mbir jag tey boo ëllëgee di ko jotal kon maa ngi ñaan ñépp nañ waxtaan jërëjëf ñu bàyyi yàllaa ki jaamam rek ci lay tëjee sama kàddu ci aaya boobu dafa fa am fan yi aaya buy dox ci sama bopp bi Seyni Xasan bu ci réew mi taxawoon nit ñi taxaw ci boroom kër yi taxaw ci société bi état bi sax mën na ci dox ba lii ñu jëm si sax muy campagne buñ ko jiitalee rek lépp baax te sëñ Cheikh junju na ko ci jikkoy sëñ Abdu yi ba indi na sax aaya bi am na indi na ko rek ñu ñaan waaye